mais question bi la bëggoon laaj c'est par rapport au, au basket féminin euh, parce que ñuy préparer JO yi e euh, et puis bon on a changé d'entraîneur Moustapha Gueye ñu ñu am sànq yaa ngi ko doon wax pourquoi Aliou Cissé di jël ay euh, étranger pourtant coach bi ñu jël étranger la si si basket si équipe féminine bi euh, Alberto Antuna mais mais mais est-ce que da nga jàpp ne boo on aurait pu faire mieux wala nan nga gisee choix choix boobu noonu parce que j'ai pas vu, beaucoup de débats là mhm. quoi. ayte ci benn simili rek ñu tëj. le de l'entraîneur espagnol non je du lu ma gënal je pas contre mais du lu ma gënal moi j'ai même eu à prendre un entraîneur français ici. may dem Madagascar. à l'inverse. mais dama dem foofu j'ai vu des jeux suffisants de à l'inverse pourtant c'est un grand entraîneur mais dama ko xool parce que aussi loolu il faut nga nekk aussi un un un technicien. mais pourtant il connaît bien l'Afrique. en tournoi. non yu ko ne la yu ko ne l'Afrique xaaral rek xaaral rek dama ne la dama dama dama jël à l'inverse ba pare ma jël ñaari ñaari adjoint euh, sénégalais teg ko autour Cheikh Sarr ak euh, xamatuma deuxième bi kan ci encore mais dama dem si biir ba gis euh, lépp li à yi def 60 pour cent c'est c'est des idées de Cheikh Sarr parce que damay juste man damay xool da gis nga au ma toog ci tribune officielle yi. man toujours ci ginnaaw équipe bi lay toog même d'ailleurs bu ñu demee championnat d'Afrique Côte d'Ivoire. Mhm. Bidé loolu la doon casse mu ne mu Tandian mais tu es tout le temps en bas mais tu dois rester en haut avec le ministre là tout ça le premier ministre c'est là ta place ma ne ko non non non c'est bon c'est bon moi je préfère rester en bas. si suuf damay sol suma survêtement toog ci suuf parce que je regarde regarde boobu nag Madagascar moo tax ma gis ma xool finalement. 60 pour cent li Alain West di def yëpp Cheikh Sarr la c'est des idées de Cheikh Sarr Cheikh Sarr aussi léeg-léeg dama koy woon une péto laaj ko euh, ndi nii bi ma dee ba si biir dañuy affaire dafa jeex ma arrêté ak euh, Alain West j'ai pris tout de suite Cheikh Sarr je l'ai mis devant c'est un très bon entraîneur. excellent. un très très bon entraîneur. Mm-hmm. et puis am fayda ak fulla. ñu jóge fa yaa yaa Boniface Ndong. très très bon entraîneur. am fayda ak fulla et ainsi de suite mais je ne peux pas comprendre pourquoi on jette tous ces gens là jokkoon nañ fi indi benn benn benn benn benn espèce xaw ma de de de de xaw ma naka toujours waaye mënu ma fexe ba la wala wala masculine non yi xaw ma yi la woon xaw ma ki ki njëkkoon indi fii espa eh, espagnol boobu la. Porfirio Fisac Porfirio xaw <laughs> je n'ai jamais su prononcer son nom xamul dans condition il est venu ici il est venu d'une condition ba pare defu fi dara lu baax ba pare ne fes dem yoonam. merci sans rendre compte choix choix Alberto Antuna bi Ancelotti Ancelotti. choix Alberto Antuna Ancelotti. Euh, le nouveau. waaw naka la tudd. Alberto Antuna. c'est c'est un espagnol Alberto. waaw Alberto non. def na jël nañ ko ba pare maintenant bon je vais pas le bousculer là. merci mais j'espère tout simplement qu'il aura un bon résultat.